yenn saa yi dañuy yombalal lu bare bari loo xam ne ñun ñoo ko waroon liggéey sax ñu liggéeyal ñu ko ndax kayit yi nga xam ne ñu ngi koy tënk di ñu ko di ko teg suñu loxo maanaam dafay nekk benn bréviaire boo xam ne mën naa wax ne bu ñu ñëwuloon CDD sax mu mat loolu bu ñu ko yónnee woon sax ab kayit bu ñu toogul woon sax mën naa wax ni CDD bi mat na kon nag loolu dañ koy sante euh, sëñ Cheikh bu baax ak ñi mu àndal ñëpp équipe bi mu àndal ci liggéey boobu ñu ñuy defal te itam nag bu ñu defee CDD bi ba noppi suivi bi liggéey bi tamit lu yomb lay doon si ñun ma seedal la ni sonal lu ñu si dara teguñu dara lu ñu munut wax dëgg yàlla lépp luñ ci def rek ñoom dañu yëg ni def nañu ay effort parfois sax administration bi am ay yenn euh, euh, loo xamante ni mën naa bañ a dox waaye moom sëñ Cheikh euh, am na mat gu toll ni yenn saay sax bu motul mu mottaliku